laka sɛgɛlɛ ah musolu sɛgɛlɛ iyo gadona hakilima yɛrɛ malo musu laka tɔɲɔlɛ ah musolu tɔɲɔlɛ o gadona yanni k'i waso wadi ti yɛlɛ fi sabu ɲuman. asabukanyi yanekaki ebwedi tribali olola mosoleve inale ina inale ina inakosa koduna inakoduna kandiwasofa maele afisa bunyuma asabukanyi Nitoke from my body, Olola Mosolefe. Inale ina, inale ina, ina kusa godona, ina nyoma bona. Solo furu ke boyala, malike bole senege yorodo. sigile malike bole kuliyiro surafana sigile uraja kekele sigido nasongo bogodo logo nyinike wamajano kafere bobogodo katilino muro totototo focho بعد الذي نراه leen siyaare rek. ñu bëri ba la yow laa gëm. Thank you. a sëñ bi waaw. ay ma ma ma aadama ko sonn ay ma ma Allo Tarkinda Social Fondation tey ñu déplacé wu ci suba ba léegi ñu ngi fii cees seet si nag benn daara internat daara Serigne Babacar Sy surtout ànd ak ñi nga xamante ne ñoom la seqal liggéey bi ñëw fi yendu fi joxe fi ndogu waaye dem ba côté Stade Lat Dior tamit joxe fa ñi nga xamante ne ñoom ñooy julli yi ñi ñoo ñoo woon bés bu tey pour ñu jox leen ñu sànni ci ay kàddu ginnaaw bi ngeen seetaanee image yi départ bi ba ñu ñuy agsi fi nga xamante ne moom mooy Thiès kii xam ngeen ko muy Sidika nekk waykat nekk fi nga xamante ni label bi nga xamante ni Matar Diop moo ko jiite. ñu subateel musique di fekk ko fi moom tam yaakaar naa doomu Thiès la di xaritu Siteu. dëgg la bàyyi la nga nuyu mbokki internet yi télévision mbokki téléspectateur bi nga xamante ni Siteu moo ngi koy def. Mhm. fondation bi nga xamante ne instant bi këree nañ ko mu ànd ak ay nawlem nan nga ko gisee. Baye Fall la te yàgg na def euh, social. Mhm. kon tey dafa feddali couleur rek. Mhm. en plus mu ñëw ba Thiès fekk ñu fii mën naa ne wax dëgg yàlla teew gi mu fi teew man am naa mbégte bu baax a baax ndax mënoon na ñëw ba fii tey ba ñibbi duñu xam ne sax ñëw na fi vraiment te def na loo xamante ne nii suñu borom rek moo ko ciy fay ndax koor moom wax dëgg yàlla ku ci joxe ay ndogo yooyu suñu borom da lay yokk rek doo mës a dellu ginnaaw te wax dëgg yàlla moom Baye Fall la yàlla na ko yàlla defal jàmm defal ko xéwal defal ko feex lii mu mën nii ren bu déwee nii mu gën ko suñu borom gën ko dolli mu gën koo mën waaw ñu ngi koy ñaanal nag yàlla bàyyi ko Cheikh Ibrahima mi yaakaar suñu borom defal ko jàmm defal ko xéewal gu rëy maa ngi am mbégte bu baax teew gi nga teew Thiès ndax boo fi teewee rek mel na ni ñëpp nga fi teewal waaw ñu ngi kontaan bu baax suñu xol sedd na. Baye ci doone waaw moom dañuy ñëwaat. xam nañ da koy tëj. lu ñuy wax daal surtout dañ koy bàyyeeg yàlla di la ñaanal jàmm gudd fan wér gu yaram. parce que xam nga lu tax lii mu nekk loo xam ne lu doy waarat te nit ñi wuñ ci xel parce que boo nee jàmm gën da xalaat fitna da ngay xalaat lu bon da xalaat lu ñaaw c'est ni non non quoi pas lu baax social. parce que tey gis nañ social yëpp mais champion wala keneen ak keneen jógee dëkk ak dëkk ñëw Thiès amagul c'est c'est la première fois kon dañ lay wax ni jàmm gën yërmande fa am parce que jàmm moo gën lañ wax kon jàmm moo gën lañ wax kon dañ ñii ñi ngi dox ci jàmm di wax ci jàmm. kon ñu ngi leen di ñaanal jàmm bu baax a baax parce que dañu ñëw fi ngeen war a ñëw mhm. ñoom demuñu ci kaw tali yi pour wanewu nit ñu ñooy joxe ndogu non non dañoo ñëw fi nga xam ni daf fi la yelloo ñoo ko soxla ñoo ko soxla xam nga dañoo ñëw keroog ñu ngi doon wane bâtiment yi ñu doon daaneel fii ci Thiès Mbourkat fii maire di jooy naan ay néew doole la ñu lekk day miti kon bu ñuy indil leen ko kon moom cant ñeel na ko mhm. kon waa koñ bi ñu ngi koy ñaanal ñëpp la ko defal laa Thiès gépp la ko defal kon dañ koy sant di ko gërëm di ko ñaanal jàmm waaw parce que segg nañ ñaari sareetu café ñaata sareetu café la romb fi bari na ñaata boulangerie mais yàlla na yàlla defal jàmm man session xaw ma ko yàgg a lekk bi laa kon ce social yàlla na la ci yàlla defal jàmm defal la ci tawféex waaw gudd fan. am na ay vidéo jamono yooyu si ginnaaw ku ko seetaan noonu sa xool day tooy eh, ñuy saccager ay këru jàmbur di ko toj. image yooyu daw yaramu ñëpp ba am ñoo xamante ne jël na ay initiative pour jàpp si lu nu mel loolu nag bokk na si choix première bi tax ñu ñëw si Mbourkat soo xoolee euh, zones yi nga xamante ni dañ enclavé nit ñi dañ leen di fàtte fépp fu doomu aadama nekk fondation bi dina la fa fekk defal la ay teraanga l'autre aspect wax nañ ko bu njëkkoon dañuy dem rek joxe ndogu mais ndogu bi dafa ànd ak ay dons je pense que ni di ngeen ko gis euh, si li voilà donc lii nag du fi yem je pense que nii doléance yi ñu fi jël ñun dinañ ko rédiger et que surtout baatam également fu mu mënti yegg incha allah dina fa yegg pour ndox bi ak courant bi mën a ñëw fii. di campagne yi jotee politicien bu ngeen mën a dégg fii si taxaw na fii sama buntu kër gi ku ngeen fi mën a dégg nag taxaw na fii pourtant bi lekk ak naan jotee kan moo ñëw Siteu moo ñëw bi nit ñi xiifee moo ñëw kon ku jar bàyyi xel la mhm. am déet. ku jar a bàyyi xel la kii a ñëw pour indi doole ña fi doon ñëw dañoo ñëw pour tibb si dem tibb nañ ba doyal weer koor woor nañ ko ba mu jeex xamuñu lekk nañ naan li jëntiwuñ loolu Siteu moo fi ñëw ànd ak délégation te xam naa ni njëkk wu ko tey ndax ba koor gi tàmbalee ba léegi noppaliku leen yéen a ngi ci kon ñu def lu ñaanal leen yàlla suñu borom bi yokku leen ba ngeen yëg ko ni ko imaam waxee sànq loolu rek moo fi ne suñu borom dina leen yëkkati bëgg nee naa bu soobee suñu borom déwén ak jàmm incha allah camion ngeen gaare fi wàcce produit yi ñu war a fas yéeneen ndogo ci kàttanu yàlla suñu borom mën na te dina ko def ci xolam a rafet bàyyi faal la xol bay rafet bu ko waxee dina ko def incha allahu rabbi ci kàttanu Mawlana man de li may ñaan mooy ndoxu courant bi fi dugg si yàlla jaare ci loxo moom mii ndax dina fi ñëw loolu loolu dina fi am ci kàttanu Mawlana dina fi am mais naa moom mii bu ñu taxawee rek suñu borom dina ko yëkkati bu macha allah daal di sant gaa yëpp di gërëm ñëpp di sant waa Mbourkaat yëpp nag. di wax ne jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Seex Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul comme ni ma koy waxee chaque jour. waaw li may njëkk a def mooy maa ngi sant yàlla suñu borom di sant sama sëriñ di sant jàmm gën boo di sant nag yow fondation bi ñi nga xam ne ñooy staff bi nekk si ginnaaw. Mm-hmm. sant Sidika sant Baye mi ñii samay xarit kon tey bu ñu ñëwee fii nii si internat bi nii tey. Mm-hmm. waaw nekkul loo xamante ne lu bees la si ñun. Mm-hmm. waaw parce que tey ku wax social wax daara. Mm-hmm. daara mooy sociale parce que tey boo xoolee imam bi leen di jàngal seen yaay yaay daara yi leen di toggal. ñoom ñëpp dañuy volonté wu di def te yàlla rek tax kon tey bu ñu ñëwee fii nii fii nga xamante ne tey moom lañ ñëw mi daara ji kon tey loolu lu ñu neex la. loo xamante ñoo ngi ñaan yàlla déwén. Hmm. buñ fi ñëwaat ñëwaat fi ak beneen melokaan. waaw di ñaan yàlla nag li nga xamante ne moom lañ manqué muy ndox. ak courant. yow ñu ñaan yàlla suñu borom képp ku ci mën dara waxuma la ñun de ñun dañuy ñaan yàlla suba ñu def ko. Hmm. mais képp ku ci mën dara. yee nga ànd seeg ñun nga def ko. Hmm. parce que boo ko defee nit mënul dund sans ndox. nit mënul dund sans lumière. kon tey imagine ñoo xamee biir Thiès lañ nekk fii nii. foo xam ne soriwuñ soriwuñ dara sëriñ bi wax na la ko sànq. nee na fii ñetti pot làmp sa ko ko samp courant bi egsi. te amuñu moyen ñetti làmp. kon loolu doy na waar. kon tey est-ce que lu jotuñu pour ñu jàppale leen. waaw il est temps ñu jàppale leen. parce que am na ñu ko mën am na ñu ko mën. am na ñu ko am. kon ñooñu noonu bu ñu rëy. dañ wàcce seen boobu dugg seen biir jàppale. parce que tey imagine tey am na ñoo xam ne tey bu si leneen lu dul lool dañuy ñëw jàppale leen. kon tey lii di ay daara ay xale yoo xam ne ñoo xamante ne suba kenn xamul lu ñuy dooni suba mun nañ dooni ku nekk. kon tey ñooñu est-ce que jotuñu jàppale leen. est-ce que jotuñu naan ndox mu sell est-ce que jotuñu am ndox mu ñuy sangoo. est-ce que jotuñu am ndox mu ñuy fóote seen yére waaw kon ñun dañu war a def lépp ñun jéem ñun ñëpp dañu war a booloo képp ku ci mën dara ñun boo ñu contacter dañ lay indi ba fii parce que ñun bu ñu ko defee baax na bu ko keneen defee baax mais le temps waaw te lii moo jar a souligner zaaru xamuma la internat yi zaaru daara yi waaw kilifa bi fi nekk nag ñoo ngi koy ñaanal yéen bi mu yenu yàlla na ko suñu borom oyofal yéen waaw yàlla ko suñu borom oyofal yéen bi ñun dañuy jéem rek ñun fépp foo xamante ne au moins ñun ñu ñëw yendoog ñun toog ñoom ndog ñoom comprendre nga ñu am ñu ñëw partager ak ñoom ñu loolu kese moo ñu neex waaw defuñu ko pour dara dañ koy def parce que loolu dafa nekk suñu xol. daara ji ndax da nga fi am mbokk da fi am bu fi am mbokk wala lan moo tax nga ñëw ba fii ak numéro xëy. waaw numéro xëy nag staff bi staff bi nga xamante ne ñoo nekk si ginnaaw peut-être ñoom ñoo fi xam ñoom ñoo fi am connaissance ñoom ñoo fi xam. Hmm. yee kenn ku si nekk boo souligner sa kàddu dañ koy respecté su groupe bi. yee si ñooñu ñoo souligner ñu mun a ñëw fii. Hmm. yee mais wax dëgg fa yàlla yee am naa fi mbokk parce que tey. bu kenn si membre yi amee si mboq fii man am naa fi mboq kon samay mboq ñoo fi nekk waaw mais ñun dañ fi ñëw en cause que doomu aadama dañ fi ñëw en cause que en tant que jeune daara ji defar doyul parce que kuy jàngal lu tollook ay deux cent jeunes jëm kaw ay trois cent jëm kaw kooku dafa dafa dafa soxla ndimbal rawatina xale yoo xam ne du ñu yelwaani du ñu dem fenn am na ñoo xam ne xale yoo xam ne ñu ngi fii seen yaay du fi ñëw seen papa du fi ñëw parce que amuñu yaay amuñu papa léegi xale yooyu événement bu jotee fa lañ jëm kam moo leen di solo te xale yooyu est-ce que ëllëg du ñu doon ku nekk da nga xam ne ñooy xëy nekk président danga xam ñu nekk ay autorités yoo xamante ne ñëpp respecté leen si dëkk bi kenn xamul kon nañ respecté ndaw yi il faut ñu respecté ndaw yi yaa ngi dégg di ñaan nag état bi si boppam il est temps moom mu jóg ci lii jàppale leen waaw parce que moom moo ñu waaw nitu daara yi parce que tey ñoom ñoo ñu fi nekkal ñoom ñooy suñuy njiit kon tey ñun amuñu kenn lu ñuy wax ñu ñoom ñu ñëw jàppale ñu jàppale jeunes yi parce que tey ñun boo jàppale jeunes yi jàppale ñun de man de ku mel ni man de wallaay ku ma woo ci ndimbal boo xam ne du ngisal du dara ma ànd wax dëgg fa yàlla kon ñun loolu la ñuy ñaan yàlla ñoom ñëpp ñu ñëw si ak képp kuy bonne volonté nekk si dëkk bi mën dara jéemal si loolu waaw ñu ñëpp dañoo war a jaxasoo di ñaan yàlla nag suñu borom defal ñu lépp ñii ma fekk fii Thiès nag muy Baye ak Sidi Kabim yow damay ñaan yàlla suñu borom taal leen quoi yee defal leen lampe lumière bi quoi yee ak képp koo xam ne yaa ngi Thiès di nuyu ñu fi nekk champion yi fi nekk ñëpp dañu bañ a déranger rek moo tax ñu bëri sax waxuñu mais buñu sañoon dañuy gis ñëpp du dëgg waaw mais staff yi nga xam ne ñoom ñoo ñu féete États-Unis parce que tamit seen loxo dañu dañu dañu si lu ñu def dara parce que ñoom yemuñu si xalaat rek mais dañoo yem ci jëf dañoo dem si jëf maanaam ñoom saa ñuy def dara rek kenn ku si nekk di nga participer sa fukk sa ñaar fukki mais si te ñu ñoo leen doole lii pour ñu dem ku mel ni Kader Ndeye Dem Madior et cetera fi nekk ñoom awa dem. Mm-hmm. ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi si staff bi ak ñoom Aliou mu nekk New York. kon tey di leen remercier di remercier aussi tamit femme sama soxna moom tamit liggéey bu doy waar la ci def mm-hmm. di remercier ñii ma àndal ñi ngay gis sama ginnaaw ku mel ni Seka Aziz Xadim Ndiaye ñoom ñëpp aw ma seen fay waaw grand vieux maa ngi leen di sant bu baax ñoom Fallou gars yi bàyyi seen yitte bàyyi seen lépp ak sama xarit yi yi ma àndal ñoom ñoxor gars yi yëpp su ma limee damay jum mais lissant daal maa ngi sant ñëpp di rafetlu ñëpp di wax ne man ci képp ku ma bëgg képp koo xamante ne bëgg nga ma jàppale bëgg naa nga jàppale mu ci social dimbali doomu aadama waaw fépp foo xam ne xalaat nañ mun nañ ko seetal foo xalaat ne mën nañ fa def loo xamante ne tey fekk fa loo xamante ne bu dee dër la ñu jëm ko karole bu dee miir la boo xamee amul peinture ñu jëm ko peinture loolu rek sama sag la waaw si loolu laa ñaan yàlla deesi waaw waaw jaajëf yani ah, Yani kake fama badi, what am I so little?